tabaarakallaahu ñu tàmbali ba balaa moo woote bu wootee rek incha allah ñun ñëpp ñu déglu ko li mu ñuy wax ginnaaw bi ñu waxee asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngi nuyu mbokk jullit yi fi daje mbokk pas-pas mbokk diine mbokk xam maa ngi leen di ziar tey sàkku ñaan ci yéen ma leen fàtte buñ fàtte wante di ñaan yàlla yal nañu yàlla may ñu ko at yu bare bare bare tam xarit bi weesu ak yëpp rek yal nañu yàlla defal sutura daayiman ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikh Sidi Ahmada Tidiane ñu ngi leen di wax ne oustaz Samb maa ko waxoon ne ko mu joxe dog boobule mu joxe astaghfirullah sarax boobu ma waxoon ni na ko wax waa xadara bi mu def ko muy kenn ku nekk ci ñun na di saraxe benn paquet ci suukar damay bañ nag ñu ne Chérif mu ngay joxe ay saraxa comme man dama weex dul ko li may wax ak li may def nag yàlla rek tax ma di ko wax yàlla rek tax ma di ko def pour ñun ñëpp la ak pour Sénégal. képp képp koo xam ne rek gëm na ko wala am ngeen ak moom kóllëre wala seen njaboot ku ko man famille bu nekk na génnee benn paquetu suukar koo ko wax na bu ko ko wax ñaari yoon su ko defee baax na su ko defut baax na ngeen saraxe ko kenn ku nekk koo ko mën a jox rek nga jox ko ko muy sarax benn famille bu nekk boroom kër gu nekk daal na génnee benn paquet ci suukar ndax Sénégal yàlla defal nu jàmm defal ko àddina bi ak élection yi ñuy waaj dugg si yàlla def fa jàmm def ci mucc ak mucc le képp koo xam ne daal déggoon na ko ci lam nañu oustaz Samb maa ko yebaloon moom nag moo ko waxoon Mansour Gueye moom waaye par organisation wax naa ko ne lu demee nii moom su amatee sarax wala turu yàlla bu ñu war a joxe pour ñu def ko ci xadara bi yooyu yëpp dinaa ko teg ci loxol oustaz sàmb saa yu ko jotalee rek jaarale ko ci seen eh, ci seen eh, whatsapp group whatsapp boobu xam leen ne man maa ko wax incha allahu gannaaw tey à doo d'aujourd'hui gannaaw tey information bu ñuy joxeeti rek jëm ci wàllu yàlla wala turu yàlla wala sarax incha allah ci lan bu ma fa nekkee waxal ko sama bopp bu ma fa nekkul dinaa ko wax oustaz eh, Samb muy Serigne Souleymane Samb mu jotal ko ci groupe whatsapp whatsapp bi yéen ñëpp ngeen partagé ko incha allah terewul na kenn ku nekk ci yéen am na responsabilité bu ma ko jox kenn ku ne responsabilité ba ma ko jox na ca yem yéen ñëpp xam ngeen ko incha allah taala kenn ku ne na yem ci liñ ko jox bañ a dugg ci lool jàmbur waaye lu demee ci nii incha allahu information ma baamuwaat ko ci wàllu sarax wàllu tur yàlla yi ñuy sikkar lépp lu ci oustaz Samb waxati rek maa ko ko wax incha allahu taala beneen bi ci des nag mooy ñun ñëpp góor góorgóorlu élection yii di ñëw ñu bàyyi xel suñ bopp bàyyi xel suñ njaboot ku ci am ay doom téyel say doom rawati xale yu ndaw yi ñu bàyyi xale yu ndaw yi ñuy taxawaalu wóorul élection bu jotee lu nekkay am ku am sa njaboot fat balaa ngaa tëdd xamal fu sa njaboot tëdd boo yendoo it xam la xamal fu sa njaboot yend ñun ñëpp ñu fuglu fuglu mooy ñu bàyyi xel suñu bopp bàyyi xel suñu njaboot te xam ne responsabilité la bu yàlla teg ci suñu loxo Sénégal it ñu ñaan ci jàmm ndax ñun ñëpp ñoo ko bokk bu baaxee ñun la baaxal su bonee ñun la bonal sarax bii nag Chérif Ibrahima moomu ko ñun ñëpp ko bokk man ñii di wax ak yéen dama ko def ni ngi ni ma leen ko sante oustaz Samb daf ko def ni mu leen ko sante lu jógee ci yàlla la ma wax leen ko fa man caa fal yumin wa man caa fal yakfur ku gëm na def ku gëmut na bax waaye forcé wuñ ko kenn nag ku gëm na def ku gëmut na bàyyi imposé wuñ ko kenn forcé wuñ ko kenn ku ko mën a def baax na ku ko mënul def it baax na waaye ñu def ko ñun ñëpp ñi nga xam ne gëm nañ ko nañ ko def maa ngi ziyaare waat ñëpp di baluwaat àq ñépp dina mënti ko ak yéen jigéen ñi surtout maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax doora nuyu góor ñi doora nuyu mag ndaw ñëpp rek asatise yeeg imaam Youssou Gueye mi ko jiite beneen bi ci des mooy waxoon naa ko Pape Modou incha allah Moussa Diouf mu baax moomu la di taalibi Sidi Ahmed si Jamil te génnoon àddina seen gàmm bi le treize la bii di ñëw incha allah góor gi saw mag la léegi dee danañ ko noppal ci yu bari bu jotee Pape Modou Mansour Gueye euh, Bay di Sall Oustaz Sidi Ahmed moomu bu fekkee demut fenn mu ànd ak ñoom su fekkee dafay dem fenn nag mu bàyyi Imam Youssou Gueye mu dem incha allah ngeen seet nu ngeen ko organiser muy Bay di Sall Pape Modou Mansour Oustaz Sidi Ahmed su Oustaz Sidi Ahmed jàppee mu bàyyi Imam Youssou Gueye mu dem. incha allahu taala liberté cinq la ngeen dem gàmm lay doon Serigne Mbaye Abdou moo koy taxawee yéen ñëpp ngeen dem teew ca ndax Moussa ku baax la woon ku ñu soppoon la génn àddina bu yàggul rek moom sax lañ tuddee bés ba ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sàkku ci yéen ñaan di leen ñaanal di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole def ñuy jullit xàqan suñu ko defee ba noppi yàlla nañu yàlla def ñuy taalibe Cheikh Sidi Ahmad Tijaani suñu ko defee ba noppi yal ñu tënk ci kër Seydul Haaji Malick kenn ku nekk foo jàpp ak foo aju lan fa yaakaar yal na fa yàlla def lu koy sa njort yal na yàlla defal ñu sutura daa iman sutura daa iman sutura daa iman baal ñu bàkkaar yëpp ubbi nag buñ ci xéewal yi ba ñëpp xaj année scolaire bii ubbi xale yi yal na leen yàlla may barke xam-xam professeur yi yal na yàlla teg ci seen loxo lu tax ñu bañatee grève état bi nga xam ne ñoo ëmb ñëpp professeurs yi di leen laaj la leen professeurs yi di laaj pour ñu jàngale yal na ko yàlla teg ci seen loxo bañ teg ko ci loxol professeurs yi lu professeurs yi jàngale ndax xale yi am xam-xam yal na ko yàlla def ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla bu benn grève amati bu yàq njàngale mi yàlla na yàlla jaarale njàngale mi ci yoon mu tegu ci yoon ñëpp di jàng ci ni ko yàlla bëgge kuy jàng arab am xam-xam kuy jàngal quran am xam kuy jàng nasaraan am xam-xam kenn ku nekk looy jàng yàlla na la ci yàlla defal barke ñuy jàng métier ñëpp te ci caméraman boobu sax Omar Diop ñëpp yàlla yàlla defal leen sutura defal leen jàmm xam-xam moo yor réew réew bu ca xam-xam amut réew ma du dox kon xale yi tamit nañ bàyyi xel jàng nañ bàyyi xel jàng nañ bàyyi xel jàng xam-xam moo yore réew kenn ku nekk looy jàng rek jàng ko ba mokk kenn ñu yàlla defal sutura defal ñu barke defal ñu jàmm defal ñu salaam ci jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ci barke Cheikh Mouhamed al Ghali ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ci barke Cheikh Mouhamed al Ghali ci barke Cheikh Alhaji Omar al Fouti al Gadawi ci barke maam Alfahim Mayoro ci barke Cheikhul Xaaji Malick ak njabootu Cheikhul Xaaji Malick bi yëpp ci barke Seydi Sidi Ahmed si Seydi Aboubacar si Seydi Xaaji Mansour Seydi Xaaji Abdoul Aziz Seydi Xaaji Habib Seydi mu Seydi Seydi Seydi Moustapha si Jamil Seydi Mouhamadul Mansour borom daara yi Seydi Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum Seydi Abdoul Aziz Al Amin ba ci xalifa bi ñu fi nekk tey ci barkeem Seydi Aboubacar si Mansour yal na yàlla dolli taxawaayam yal na yàlla dolli wéram te bàyyi ko ci kanamu xadara bi ci kanamu njaboot gi mu yàgg ci xilaafa agi lool ànd ak mucc mucc le waaye ci barke Cerno Bachiru Muntaga Daha Cheikh Umar ci barke Sidi Abdul Aziz Dabakh ak wëllëreem ba Cheikh Alxaaji Cerno Saidu Nuuru ci seen barke yal nañu yàlla defal sutura defal ñu xéewal defal ñu jàmm defal ñu salaam mucc ak mucc le wér ak wér la wërsëg yu yaatu tem bañ a daw waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu